ok alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom ci lim ñu jàppandalal ñu daje ci ab néegam di fës yéene jàng ab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na amul benn mbooloom jullit ñuy dem ci néegub yàlla ba ubbi téereb yàlla ba di ko jàng lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka ya ne fa moom yal na yàlla boole ci sunu jataay bi mboolem ñi nga xam ne it ñoo koy nar a déglu ak fu ñu mën a nekk yal na yàlla boole ñoo ñoom ca ñu yonent bi alayhi salaam di wax ni bokk na ca ñu yàllay keral yowmal qiyaama ñi seen xol aji woon ca jàkka ya tey ji tey ji mooy ñaareelu fan ci weeru muharram sunu maam yi di ko wax tam xarit muy ñaareelu fanit ci atum mille quatre cent quarante di atum l'islam bu bees bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee jóge Makka jëm Madina ñu tombee li nga xam ne mooy 12 septembre bi 2018 ñu ngi nekkoon ci saar wi nga xam ne mooy suratul araf jëloon ci benn bind ñu war a jël tey sunu ñaareelu bind ci aaya ñaar fukki bi ak ñett fi suñu borom di waxe qaala rabbana zalamna anfusana kon incha allah dañuy bàyyi ak Cheikh Aline mu jëlal ñu bind bu njëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom ne sunu baay aadama sunu maam hawa ànd ne qaala rabbana zalamna anfusana e yàlla suñu boroom ñun de tooñ nañu suñu bopp tooñ nañu suñuy bakkan wa in lam taxfir lana wa tarhamna soo ñu jéggalul te yërëm ñu dey lanakunanna min alxaasirin kon dañ bokk ci ñi nga xam ni dañoo perte qaala ihbitu ba'dukum li ba'din adu mu ne wàcc leen lenn ci yéen nekk noonu ña ca des walakum fi l ardi mustaqarrun wa mataaun ila xiin dana leen ñeel ci kaw suuf aw sax saxuwaay ak lu ngeen di bànne lu ñuy bànneexoo ba ci jëmmi jamono qaala fiiha taxyawna suuf mu ne suuf soosu ca ngeen di dund wa fiiha tamuutuun suuf soosu ca ngeen di deeye wa minha tuxrajuun waaye ci suuf boobu it lañ leen di génnewaat yaa bani aadam ey yéen doomi aadama yi qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum wàcce nañ ci yéen yére yoo xam ne dana suturaal dana muur seeni awra wa riisha wàcce nañ it yére yoo xam ne da ngeen koy man di tuwaletoo wa libaasu taqwa zalika xayr waaye xam leen ne yërëg ragal yàlla day loolu mooy la nga xam ne mooy la gën zalika min ayatillah lii day ci kawti fi yàlla yi la bokk laallahum yazakkaruun ngir ñoom ñi fàttaliku yaa bani aadam ay yéen doomi aadama laa yaftinannakum sheytaan bu mu leen fitnaal sheytaani kama axraja abawaykum min aljanna comme ni mu génnee woon seen bàyyi ca àjjana ja mi ngi noonu yanzi'u anhuma libaasuhuma ma ngay nekk di rocci la nga xam ne nii di këf la nga xam ne mooy seen yére ya li yuriyahuma sawaatihima ngiree mu won leen seen awra ya innahu yaraakum moom day di seytaane mi ngi leen di gis huwa wa qabiluhu moom ak ña nga xam ne ñooy giir gam bokk min haysu la tarawnahum ci foo xam ne yéen du ngeen leen fa gise inna ja'alna shayatina awliyaa lilladina la yu'minuun ñun ñoo def cheytaane ñuy féetey ña nga xam ne gëmuñu ñu ngi noonu mbokk bi ñu fi mujjee daje ci wax rek bis yi ni muy gaawe bi ñu leen di wax ne ay épisode yi mbokk yi nga xam ne dañoo bëgg a def wëlbati xel ñu leen neex dañuy dage dage ay épisode àllarba bi passé la ñu nekkoon di gis sunu baay aadama ak sunu yaay xawaa ci àjjana suñu borom ne leen àjjanaa ngi nii fu leen neex dem leen lu leen neex lekk leen waaye gis ngeen garab gële bu leen ko jege seytaane ñëw man ma ne leen xamal leen ni yàlla li tax mu tere leen ko dafa bañ ngeen nekk ay malaaka dafa bañ ngeen bañ a dee yemul ci loolu mu waatal leen gën jaa tar ci waat ba tax ñoom ñu gëm ko dem mos garab ga biñ mosee garab gi la nga xam ne moo leen doon suturaal na fër dem ñu def yaramu neen looli ñu daal di jàq commencé di dagg ci xobi garab yi di woddu suñu borom yàlla woo leen ndax aadama terewuma leen woon garab gi ne leen seytaane seen noon la foofu lañ mujjoon alarba passé amma lan la suñu bay aadama tontu moog suñu ay hawa ñoom day dañoo daal di tuub dellu ci yàlla seytaan sunu noon bi li ko yàlla santoon rek la sant aadama da koo jox ndigal ndigal bi mooy lan kaay sujuutal aadama seytaane bañ yàlla daal di wax ak moom mu fetteerlu tuubul am na sunu baay aadama lu ko yàlla sant bul laal garab gi mu laal ko mais bi yàlla waxee ak moom lan la def mooy dafa dellu ci yàlla daal di tuub indi la nga xam ni mooy tax yàlla nangul la lu jëkk mooy reconnaître ne dafa def bàkkaar rabbana zalamna anfusana te mbokk julit xamal ni bépp bàkkaar boo def wax la am jëf yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi yàqal sa bopp yaa ngi lor sa bopp rabbana zalamna anfusana loolu mooy reconnaître bàkkaar bi ca loolu mooy tax nga rëcc ko moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax anadaamatu tawba ñaareel bi ñu ne yàlla bu dee jéggaloo ñu bàkkaar bii day ca mooy kon ñoom ñu ngi koy tuub ngir yàlla baal leen yàlla jéggal leen te it bàkkaar mi ngi noonu gannaaw bi nga ko reconnaître da ngay war a dellu ci yàlla mu jéggal la ca xam ne kenn dong moo mën a jéggale bàkkaar muy yàlla wa man yaxfiru zunuba illa allah yàlla rek mooy jéggale bàkkaar waaye ndax yàlla jéggal la ci bàkkaar bi rek doy na déedéet doyul ndax boo ca delluwaatee dellu fa nga jóge woon moo tax ñu ne wa in lam taxfir lana wa tarxamna soo ñu jéggalul lii ñu def waaye yërëm ñu bañ bañ a defeeti lu mel noonu kon dinañ bokk ci gaa yu perte yi te loolu mbokk mi ngi noonu di jéggalu gu rëy goo xam ne jullit war na koy bàyyi xel e yàlla tooñ naa yàlla soo ma jéggalul yërëm ma danaa bokk ci ñi perte bépp façon bàkkaar doomu aadama mën na caa jéggalu loolu mbokk bu ñu delloo ci lenn ci ay téere dañuy fay fekk benn xadis bu ñu fa sos ñu tëddee ko xadis mawdu am na ñoo xam ni bëgg gi ñu bëgg suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam tax na ñu créer ay xadis yu dul jeex ñu jàpp ñoom ne dañuy màggal yenente yàlla bi te fekk ne ña ngay def musiba bu rëy yenente bi alayhi salaam dane woon képp ku ma fenal na waajal place am ci sawara ñu ne sunu bay aadama bi mu defee njombe googu mu def lekk garab ga daf ne ay yàlla baal ma yàlla bi jaahi muhammad ci barkeb muhammad suñu borom na ko waaw aadama foo xamee muhammad mu ne ko dama gis miiri àddina yépp ñu bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma xam ne sa jaam bi ngay jël aw turam lënkale ko ak saw tur ko màgg la ci yow suñu borom na ko waaw mu aadama demal lawla muhammad maa xalaqtuk bu dul woon ak muhammad du mu la bind mbokk xadis boobu tax na ba sunu mag ñu bari bu ñu leen laajee dañu naan muhammad moo tax yàlla bind ñu dégg ngeen ko déggee muhammad a tax yàlla bind lépp ci xadis boobu lañ ko teg waaye mbokk loolu wérul wérul ci xadis ba wérul ci alquran alquran yàlla dañoo wax wax bu leer naññi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbudun mu ndax gaa yi wax mën na gën a leer lii déedéet yàlla mi bind wàcc alquran moo wax mu ne binduma nit ñi ak jinne yi lu dul ngir ñu jaamoo yow nga ne yàlla dañoo bind ngir muhammad ñaareel bi itamit moo dina ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon wax ne man nit laa comme yéen aadama mooy sama baay suñu borom yàlla na ko bis boo ma bokkaalee sa jëf yëpp dana màbb da nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo perte almuhim mbokk julit bul gëm ne yàlla dañoo bind ngir mu muhammad loolu wérul bul gëm ne yàlla dafa baal aadama ngir muhammad loolu wérul la tax yàlla baal aadama mooy wax ji nga jàng rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin te bi mu koy wax moo xawaa ñoo ànd wax ko mi ngi noonu muy wane góor ak jigéen ñépp a war di tuub seeni bakkaar bi loolu amee nag suñu borom ne leen wàcc leen fi ngeen nekk loole lu bari ci mufassiruuna yi dañ ne iblis la ak aadama ak njabootam wàcc leen ci kaw suuf ngeen nekk ay noonu te mi ngi noonu iblis ak armeem ak doomu aadama yi ba ba addunay tukki ay noon la ñuy doon ay noon la ñuy doon suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne suuf soosu nga xam ne fa ngeen jëm da ngeen fa mën a am saxuwaay wax nañ leen ko ci àllarba ji passé bi borom bi di wax naan laqad makkannaakum fil ard mbokk tey suñu borom yàlla won nañu ana ñaata planète ñoom noo nekk ci kaw jaww ji mais scientifique yi dëppoo nañu ne doomu aadama ci kaw suuf rek la mën a dund moo tax suñu borom ne defal naa leen fi ab daluwaay defal naa leen fi it lu ngeen di mën a dundee ba ci jimmi jamono te mbokk dund gi ñuy dund ci kaw suuf am na bis suñu borom yàlla jeexal ko faat mboolem lu fi nekk ci nit ak jinne ki bàyyuma gannaaw ba it suñu borom yàlla ne suuf bi ci ngeen di dund suuf bi ci ngeen di dee waaye ci laa leen di génnewaat beneen yoon loolu kon la suñu borom yàlla wax ci étape boobu nga xam ne mooy diggante aadama ak iblis bu ñu wàccee ci kaw suuf léegi nag suñu borom ñëw ci ñun di woote ya bani aadam lu bari ci alquran borom bi dinaan ya ayuha nnas wala ya ayuha allazina amanu mais fii lu tax yàlla indi ya bani aadam ca xoolal dars bi ñu war a jël tey ñeenti yoon suñu borom dana ci woote ya bani aadam mi ngi noonu page bi nga tiim am na ñaar page gauche bi am na ñaar ya bani aadam ey yéen njabootuk aadama ki wàcce naa ci yéen ay yére yu leen di suturaal seen awra mbokk mi ngi noonu xoolal lii dund ci kaw suuf ci ay millions d'espèces doomu aadama rek la yàlla may muy suturlu ci ay yére wàcce naa ci yéen la nga xam ne mooy yére yu leen di toilette awra mooy lan ki nga xam ne génnoon na muur diggante jumboxam ak óomam ku mel ni muur na awraam li ci des lépp riche la mooy lu ñuy toile too la su ko defee mbaxana yaag kol yaag yére yaag yu mën a doon loolu lépp ci toilette la tudd loolu bu dee góor a amma bu dee jigéen a moom tamit suñu borom yàlla def na yaramam yépp day nekk awra ba mu des kanamam ak tibbi jaraam ay loxoom donte ne borom bi nim ñi maye yére bi ñuy am pour suturlu amul kenn ci yéen tey ku mën a xam ñaata yére la bàyyi kër ga loolu la ñuy tuddee riche muy yére pour toilette waaye borom bi nag ne xam leen ni lii di yére ragal yàlla day mooy li gën mi ngi noonu ngiree ngeen doom ñiy fàttaliku bokk doomu aadama yaa ngi solu di sonn di ñawlu ngir sàmm sa yaram ngal la way xamal ne sàmm sa diine moo gën a yey ci loolu boo delloo sunu mag ñi sax dañu naan der bu rafet moo gën toilette bu rafet benn waaye ngi nii ci koñ bi bu jógee li muy sol dana jóge deux cent mille ou trois cent mille waaye fu mu romb ñu ne cam lu tax ndax lu bon la nga xam ne noonu la nekke am benn waay bu nekk fii ak jukkoom yu rafet ak jukkoom yu tedd lu mën a sol fu mu romb ni ñépp fonk ko loolee kon dalay wan ne mbokk góor góor loolu sa kémtalal kàttan sàmm sa ngëm yàlla libaasu taqwa mooy fexe ba li la yàlla digal li la yàlla tere nga taxaw ci sàmm ko looloo gën a yey ci yow sa yére bi ngay xool ndax tilim na ndax paase nañ ko ndax kaza ndax kaza borom boobu itamit dañuy jàngal lu mel ne lu Usman ibnul Affan doon wax mu ne ay yéen nit ñi ragal leen yàlla lu waay nekk yàlla dana ko ko solal lu waay nekk yàlla dana ko ko solal heure boo saxee sa digganteeg sa borom sell ngay def lu baax ci kanamu nit ñi di def lu baax heure boo weetee yàlla dana dugal ci xolu nit ñi ñu bëgg la xam ko baax nga mais heure boo jàppee sa bopp doon ab truand di wor boo nekk ci nit ñi rafetal waaye boo weetee la la neex nga def ko ci jalgati suñu borom yàlla dana xamal nit ñi ne kii doo du ko baax loolu tax ngis benn ndaw su nekk ci koñ bi waa koñ bi yépp dëppoo ne kii kat day jaay boppam et pourtant kenn mësu ko gis ab góor nit ñëpp xam ne kii ab mandikat la ca mën nam sax gisuñu ko muy naan lu waral loolu mbokk lu baax li ngay def yàlla da koy feeñal lu bon li ngay def yàlla da koy feeñal moo tax suñu borom libaasu taqwa zalika xayr fexe ba am yëre yi ragal yàlla loolu mooy la nga xam ne mooy la gën borom boobu subhanahu wa taala mu ne lii day ci samay aaya la ngir nit ñi di mën a fàttaliku fàttaliku lan mooy sunu baay aadama day yàlla woddoon na ko dugal ko ajjana jox ko ay ndigalam bam ko jalgatee yàlla daal di koy teg ci awra loolu it moo tax ba julit bu nekk di doomu aadama di mën a xool kémtalal kattanam naka lay def ba bañ a jaar fi bay aadama jaaroon bu ko yàlla nattoo bam jaar fa it mu daal di tuub toroxlu delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala moom la yeneen ci bale sam doon wax naan bépp doomu aadama dana def bakkaar ki gën ci ñoom mooy ki nga xam ni heure bu ko defee tuub dellu ci yàlla suñu borom yàlla ñaareelu woote bi mu ne ay yéen doomu aadama yi bu mu leen fitnaal cheytaani ni mu génnee woon seen bàyyi ya ca àjjana ngiree won leen seeni awra moom mook famim ay cheytaani yi ne moom dañ leen di gis fu ngeen leen dul gise mbokk yàlla may na la nga xam ne muy jinne muy gis doomu aadama te doomu aadama du ko gis seytaane yooyu itamit loolu moo tax ñuy man di am occasion ngir lor doomu aadama looloo tax ba yow fexeel ba di góorgóorlu sa kemtalal kattan di baril di muslu ci ñoom ndax kat suñu borom nee na dañ ñuy gis fu ñu leen dul gisee waaye la chaque ne ñoom it yàlla ngi leen di gis fu ñu dul gisee yàlla am déet looloo tax kon del làqu ci yàlla ngir yàlla musal la ci ñoom borom boobu subhanahu wa taala da ngay gis ne seytaane nax na suñu bàyyi ba génne ko ajjana ñun bëgg nañoo nax ba duñu dellu ajjana ca mbokk ajjana jaa nga ne sunu borom defaral nañu ko ba pare ne jaar leen fii dem tabbi ajjana seytaane nag lan mooy mbiram fexe ba nit ñi duñ fa dugg moo taxoon lañ jàngoon alal ba paase mu ne danaa toog ci siratakal mustaqim loolu it bokk na loo xam ne it yow julit dee ko tàmm heure boo demee bay summi say yére del wax bismillah boo waxee bismillah loolu dana la suturaal ca la nga xam ni mooy seytaane yooyu di gis sa awra borom boobu kon subhanahu wa taala loolu la wax mu ne mi ngi def seytaane yi ñu nekk féete yi ña nga xam ne duñu gëm yàlla ñu nekk féete yi duñu gëm yàlla kon képp ku gëm yàlla seytaane moo la féete woo fexe leen yéen seytaane bañ leen fitnaal mbokk fitna yi seytaane ñaara ca gën a màgg li ñuy tuddee fitnatu shahawaat wa fitnatu shubuhaat fexe ba lëntal la diine yàlla ji doo ci xam dara nga jóg di làmbatu rek la ëpp ci doomu aadama yi foofu la leen jaar ña nga xam ne dañ koo mucc ba xam diine yàlla ji bëgg koo dund mu jaara leen ci bànneexu bakkan yi bànneex yooyu ñu tapp ko ñu bëri ci la leen alage xam leen ne seytaane dana fitnaal nit ñi bu dee yéen góor ñi moytu leen bokk ne fitna ba gën a rëy bi muy utiliser mooy fitna jigéen donte ne jigéen ñi dañ leen fitnaal ci góor bokk na ci fitnay seytaane alal ñu bëri seytaane ci alal la leen fitnaale ba yàqaleen seen àdduna yàqaleen seen àllaaxira bokk na ci fitnay seytaane li ñuy tuddee ay daraja mooy bëgg ak pal am na ñoo xam ne falu jaral na leen lu nekk pal ga ne nekk président la palu ministre la palu directeur la palu lu mu mën a doon loolee ñu bëri seytaane fa la leen jaaree am na ñu bëri seytaane mi ngi leen jaarale ci fitna mer bañ meree lañ fase seen soxna ca la ñu dog seen diggante ak seen frère ca la ñu def lu ñaaw jëm ci seen waajur loolee mbokk da ngay gis yi yépp fitna la yu seytaane di fitnal doomu aadama yi ku nekk ci ñun heure boo yégee lu lay xëcc ci loolu la ngay jëkk a wax waxal a'uuzu billahi min asheytaani rajim yaa ngi yor kees gi ba mu jënge ne waaw téeme ci rot ci cinq cent mille waxal a'uzu billahi min asheytaani rajim xale bu jigéen bu taare bi waa kii téema dem seeti ko waxal auzu billahi min asheytan rajim lépp lu nar a dox sa digganteeg say mbokk julit waxal auzu billahi min asheytan rajim lu tax mooy yooyu da ciy bëgg a jaar ba yàqal la sa diggante ak sa boroom yal na yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci ay pexeem mi ngi noonu Cheikh Ali وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون barakallahu fiik suñu boroom jalla wa ala mu ni wa ida faalu fahisha ñooñu nga xam ne gëmuñu bu ñu defeew ñaawteef qaalu wajadana alayha abaana ñu ne ñun dey lii dey ca la ñu fekkoon suñu bàyyi ya wallahu amarana biha ca lii dey yàlla moo ñu ko digal qul inna allaha la ya'muru bil fahsha neel yàlla day du digle ay ñawteef ataquluuna ala allahi ma la taalamuun ndax da ngeen di wax ci yàlla loo xam ne xamu leen ko qul amara rabbi bil qist neel digle na sama borom kay cig maandute wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ca ngeen taxawal seen kanam yi ca bépp jàkka waduuhu muxlisina lahu diin ca ngeen koy woo di ko sellalal diineem ji kama badaakum tauduun comme ni mu leen sose rek noonu ngeen di delloo fariqan hëda benn parti ca yéen jubal na leen wa fa wa fariqan xaqa alayhim dalala beneen parti ca ñoom yey na ci ñoom réer ga innahum ittaxadu shayatina awliyaa min dunillah ñoom day dañoo jël cheytaan yee def leen ay féete gannaaw yàlla ba pare wa yaxsabuuna annahum muhtaduun gannaaw ba ñu jort ne ñoom day ñi ngi nekk di aji ñu jub mi ngi noonu mbokk bokkoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu fekkoon waa Makka di ko def ñoom dañ doon dem di aji ji Makka loolu saxoon na baba atum juróom ñeenteel ma ca gàddaay ga ay ci fin dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewul yéefir yi dañ doon aj si màkk buñ daan aj màkk lu ñu daan wax ñoom dañuy ne yére yi ñu daan sol dañuy def ay bakkaar duñ ko wër ak néegu bu yàlla bi su ko defee dañuy ñëw di wër néegu yàlla bi comme na leen seen ndey jure woon yaramu neen jigéen ñi guddi lañ daan ñëw di wër ñoom it yaramu neen loole di aw ñawteef ba pare ñu ne lii yàlla moo leen koy digal suñu borom ne yàlla du digle ñawteef ca mbokk mi ngi noonu lépp lu ñaaw rek xamal ne yàlla diglewu ko du ay wax du ay jëf borom bi ne ndax da ngeen di waxal yàlla loo xam ne xamu leen ko ca la chaque ne wax jooju tegguñu ko fenn ca it loolu façon jaamiwunu yàlla la bu ñu sosoon ba pare ne comme fekkoon nañ ne seen bàyyi di ko def lii kon lu yàlla subhanahu wa taala dégle la ndax ñoom seen lay moo nekkoon mooy bu neexul woon yàlla bokkaale gi ak jëf gi yàlla du ko seetaan sunu bàyyi sunu maam yi yàlla du ko seetaan le fait que yàlla seetaan ko kon lii lu neex yàlla la mbokk loolu du lay ci diine diine kenn du ko laye ak yàggaay waaye diine ay tegtal lañ koy layee suñu borom mu ne déedéet yàlla du digle aw ñaawteef yàlla kay lëm digle mooy alxist xist mooy maandu digg doomu bañ a wàññi ay ndigalam bañ a yokk ay ndigalam mbokk lii mooy diine mooy sax juste mesure ci li yàlla santaane yàlla lan la farataal ci ñun benn weeru koor yàlla lu mu farataal ci ñun julli juróom timis lu ko yàlla farataal ñetti rakka yooyu yépp da ngay gis ne ay ndigal la yoo xam ne suñu borom daa bëgg buñ ko yokk buñ ko wàññi amara rabbi bil qist gannaaw ba it ñu maandu ci diggante jaamu yàlla yi borom bi it mu ne jubal leen seen kanam jëm ci bépp jàkka jubal leen seen kanam ay jubal ko ci yàlla jullit yàlla rek lay jaamu yàlla rek lay jublu yàlla rek lay yaakaar looloo taxit boo ñëwee ci jàkka ji taxaw ñun ñépp dañuy ànd jublu ci yàlla suñu xisee ba kàbbar sax dañuy tere kenn ko geestu kenn ko wëlbati ko bal boo wëlbati koo ci biir julli gi sax julli ga day yàqu mi ngi noonu loolee kon da ngay gis ne moom la borom bi subhanahu wa taala wax mu ne nag woo leen ko ngeen sellalal ko diineem bañ koo bokkaale ak dara mbokk islam xamul yàlla ak mooy Sénégal li fi siiw siiw fu bëri mooy yàlla ak diw mbokk ak bokkul ci diine lislaam yàlla kese faduuhu muxlisina lahu diin woo leen ko sellalal ko diineem ji ca xam ne nim leen sose woon nga jóge ci sa biiru yaay daa di wàcc ci kaw suuf noonu it yàlla dana la mas a génne ci biir suuf nga daal di taxaw ci kaw suuf doon yaram mu neen kama badaakum taudun moom ngeen di delloo borom bi nag ne yéen day benn wàll ci yéen yàlla jubal na leen yàlla na yàlla boole ñu ca waaye li ëpp ci nit ñi suñu borom mu ne yey na ci ñoom ak réer yàlla waxul da leen réeral waaye yàlla da leen a may xel tëralal leen aw yoon ñu lànk bañ caa jaar yeeyoo la nga xam ne mooy ak réer borom bi subhanahu wa taala nag ne loolee bañ ko defee bañ jaamu jiwul yàlla dañoo dem jël seytaane mu def ko seen féete sun mag ñi dañu naan ku demul àllarbay yoneen da nga dem dibiiri firawna mboo ko kaw suuf kenn mënu fi neutre il faut nga am parti boo bokk imma nga bokk ci xizbullah muy parti yàlla boo bokkul parti yàlla rek seytaane boole la ci parti mu neex la ak mu naqari la jël nañ seytaane yi def leen ñu nekk seeni féetewoo loolu nag tax ba seytaane taaralal leen la ñu lekk ñoo jàpp ne ñoom ñi ngi ci ak njub ñi ngi ci ak baax ca mbokk loolu mooy li gën a dangereux liy dal doomu aadama doomu aadama nekkal agresseur nekkal bokkaalekat nekkal lu la neex ci bakkaar mais tant que yaa ngi yëg ne lii ma nekk baaxul am nga chance bis nga tuub ko dellu gannaaw mais mu bokk ci lu dangereux mooy li seytaan di dugal ci doomu aadama yi mooy li ñuy tuddee bida mbokk bida heure boo ko sosee ci diine da ngay ñaan yàlla rey la ci ñaan yàlla saxal la ci lu tax da ngaa jàpp ni li lu baax la looloo tax ba dañu naan seytaane bidaa moo ko gënal fuuf bakkaar waa jee nekk ca bidaam di ko jaamoo yàlla kooku la seytaane gën a kontaan même bu dee ma nga sax ci biir jàkka ja kaw julit bee nekk ca baar ba di naan ndax kee ca baar ba di naan xam na ne ne lii may def man baaxul mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala peut-être yàlla génne ko ci amaa kee nekk ako biddaam mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala rey ko ci borom bi na subhanahu wa taala mu ne jël nañ seytaane yi féetewoo leen ñu dévier leen ci yoonu yàlla ba pare ñoom ñu jàpp nag ne ñoom day nekk nañ ci ñoo xam ne nii ñu jub lañu ñu ngi noonu yàlla na yàlla musal ñu ci loolu
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون barakallahu fiik suñu boroom jalla wa ala mu ne yaa bani aadam ey yéen doomi aadama yi xuzu zinatakum inda kulli masjid jël leen seen taar ci bépp jàkka wa kulu washrabu wala tusrifu lekk leen ngeen naan ca bu leen yàq innahu la yuhibbu almusrifin yàlla day bëggul yàqkat yi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده نيل كان مو أرامل li nga xam ne ni moom mooy taarub yàlla ba nga xam ne génne na ko ñeel ay jaamam wa tayibaati min arrisq ak la nga xam ne yu teey la ca wërsëg ya qul hiya lillazina amanu fi lxayaati dunia neel dana ñeel ña nga xam ne dañoo gëm ci dund ak àdduna gi waaye xaalisatan yowmal qiyaama doon luñ leen di jagleel ca bis yowmal qiyaama kazalika nufassilu l ayaati li qawmin yaalamuun lii de la ñuy teqale aaya yi ñeel xeet boo xam ne dañuy xam qul innama harrama rabbi alfawaxish neel la am kay mooy sama borom yàlla daa araamal ñaawteef ya ma zahara minha wa ma batan la nga xam ne feeñ na ca ak la nga xam ne nii da caa nëbbu wala isma noonu la araamale bakkaar ya bu mu mën a doon wal baxya bi gayri alxaq ak bépp bew bu tegewul ci dëgg wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana ak ngeen di bokkaaleeg yàlla lu mu wàccewul benn lay wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun ak it ngeen di wax ci yàlla loo xam ne xamu leen ko li kulli wa li kulli ummatin ajal dana ñeel bépp xeet ab dikk fa ida jaa ajaluhum heure bu dikkee seen dig ba day laa yastaxiruuna saa duñ ko mën a yéexe benn waxtu wala yastaqdimuun duñ ko mën a gaawe it benn waxtu mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne ey yéen doomu aadama yi jël leen seen taar jëm ci bépp jàkka jàng nañu sànq mu ne moo ñu wàcceel lu ñuy taaroo ci ay yére jàng nañu sànq yéefir yu réer yi dañu daan dem ca Kaaba ga jàpp ne néegub yàlla bi bépp yére bu mas a fekk bàkkaar wuru koo jege ñu def yaramu neen waaye mu ne jël leen seen taar jëm ca jàkka ja ngalawaay jullit bàyyi leen xel loolu jullit heure bu jógee bay dem jàkka su jóge woon ca jàkka ja buñ ne ko woon kay dem palais président war naa mën a dem sans problème lu tax mbokk jàkka ja fa la jullit ñay daje jàkka ja fa la malaaka yay daje ñu war koo waajal ci taar taar bi jëkk mooy sexe heure booy dem jàkka xamal ne suñu diine lislaam sant nañu ñun ñëpp nañuy sangoo suñ diine lislaam sant nañu nañuy jàpp waaye bokk na ci itamit ñuy xool mbaa xet gu neexul duñ ko yóbbu jàkka ja yonent bi alayhi salaam daana wax ne ki lekk ay laaj ba gémmiñam soppeeku bu mu julli si ak ñun ci jàkka ji loolee ku nekk ci war a bàyyi xel rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne su ma bañul woon sonal leen dina digle nit ñi heure bu ñu jógee di jàpp ñu socc doomu aadama bi del baril di socc yàlla may nañu sax lu ñuy tudde ay pat yu ñuy brossé woo loolu sax bu la ko yàlla may ngallaway del borosu gémmiñ gi lu muy gën a set di gën a yomba def zikrullah malaaka yi di la gën a mën a jege loolu boo nekkee sa mbokk julit ci mbooloo ci sàppe yi it doo leen sonal yére ya ngay sol na doon yére yu laab bu mu doon ay tâche rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ya weex sax mooy ya ca gën ndax weexaay day tax ba tilim bu ci nekk ñu mën koo xam ndax bu dee beneen yére mën nga ko sol lu yàgg ca fekk ne kenn du sentir tilim ba ca nekk loolu dañ cee war a bàyyi xel xudu zinatakum inda kulli masjid borom boobu subhanahu wa taala wëlbatiku it ne lekk leen ngeen naan ca bu leen yàq borom xam-xam yi dañu ne médecine réunie mooy lii la nga xamee ne nii mooy doomu aadama am wir gi yaram gu mat sëkk mi ngi aju ci mu xam lu muy lekk nan la koy lekke lu muy naan nu mu koy naane ci bañ a ëppal bañ a yàq di lekk normal bañ a yàq loole muy médecine waaye itamit mbokk suñu borom mu ne bu ñu yàq ndax xam ngeen luy premier yàq mooy lu xaraam waa ji nga xam ni dafa jëloon cent franc jënd ko sachet sangara kooku ma ngay yàq waa ji nga xam ni dafa jël lépp lu xaraam jëf ko ci colam ci lu mu mën a doon mi ngi yàq waaye gannaaw lu xaraam lépp lu ëpp ak yàq la doomu aadama del solu colu gu digg doomu moytul col goo xam ni dafa jéggi dayoo ba yegg ci suhura ay toilettes yoo xam ne mas na dégg benn waay boo xam ne faatu na yal na yàlla yërëm ko ay ñu koy interviewé mu ne man su ma solo ba génn danaa sol six cent mille au minimum six cent mille sama col dana ko mat bokk loolu day doy day doy waar sunu mbokk jigéen ñi dem naan ay yenn genre yére yoo xam ne deux cent mille trois cent mille boo ko solee benn yoon ñu gis ko dootoo ko bëgg a solaat yooyu mbokk ay yàq la ci wàllu col lekk gi tamit yaag sa waa kër lekk leen lu baax mais bu leen yàq bu leen yàq lekk goo xamee ni nii tey bu dee ne hôtel yeeg yeneen yi jarul may wax nga gis loo xam ne nii fukki nit mënoon nañ cee lekk ba suur ñu tegal ko ñaari nit ñu nekk fa lekk lu jéggi dayoo gannaaw ba julaat di dajale sànni ci mbalit ñi mbokk loolu ay yéeféer ñoo ko waroon def waaye warul am ci dëkk julit te malheureusement bari na lool ci jullit ñu koy def lépp loo xam ne yaa ngi koy def dee ko calculer na doon kër ga ga ngay tabax la tabaxal kër gu baax gu xaj yaag sa njaboot waaye jël lu jege un milliard def ko ci benn kër boo xam ne yaag sa soxna sa ñaari doom ak seen xaj yéen a fay dëkk mbokk loolu ay mbir la yoo xam ne ñi ngi koy gis tey mais yàq mënta paase loole otal oto bu baax booy war waaye jël cent millions def ko ci benn oto ci réew mu pauvre comme Sénégal ngay romb ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer loolee mbokk ci ak yàq la bokk di mbir yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel nettali naa leen fii ay yoon fi nga xam ne mooy sunu mbokk Ibrahima kan mooy borom këru Aja Binte Thiaw yal na yàlla sàmm leen nee na dañoo dem ci Ahmed Sakhir Lo bi nga xam ne moo sos daaray kokki nee na biñ ko ziyaaree bay dem mu génne benn paquet benn grand boobu boo xam ne nañ ko ñëwee jéggi na dayoo mu daal di koy jox xaritu Ibrahima bi na ko ah ndax aajowoo lii mu ne ko ah kay suñ bi kay aajowoo naa ko bi mu ko jëlee ba bokk ko mu ne ko waaw mais fi mu ne di ñeme nga koo sol ba pare di romb góor gu amul dépense yaa ngi dégg xoolal mbokk ñooñu seen yëgini fi mu toll ala kulli xaal taxul mu xaraam solal lu baax solal lu rafet waaye nag yàq ku ne xam na luy yàq yàlla bëggul yàq ci lu mu mën a doon lekk leen naan leen waaye bu leen yàq yàlla mu ne bëggul yàqkat yi innahu la yuhibbul musrifin yàqkat yi ixwaanu shayaatine lañu yàlla ko sutul isra képp koy yàq mbokk seytaane la yàq ga nag ma ngay commencé ci lekk ga naan ga col ga dëkkuwaay ba xatta ka nga xamee ni nii dafay dimbali nit ñi sax suñu borom mu ne wala tubazir tabzira bul nekk la nga fayoo ko salaire balaa la cinq nga tasaare ko ci nit ñi yàlla bëggul li ngay def innahu la yuhibbul musrifin borom boobu nag wëlbati ko waat daa di ne waaw ana kan mooy araamal taar bi yàlla wàccal ay jaamam ak la nga xamee ni nii mooy la gën a teey ca la nga xam ne mooy wërsëg yi déedéet mbokk julit borom bi subhanahu wa taala nee na ñi gëm yàlla moo tax mu wàcce bépp taar bu mu taara ci àdduna bokk àdduna lu fiy lekk lu fiy naan lu fi ay fleur lu fi ay waruwaay lu fi lum mën a doon yàlla indi na ko ngir ñi gëm yàlla ñoo tax yàlla indi ko buñ demoon ba kaw suuf kenn waxutu fi laa ilaha illallah yàlla tukkal àdduna gis ngeen boole mi xiiwal ñi gëm yàlla tax kon yooyu mi gëm yàlla mën nga ci profité boo paree nga sant sa borom waa ji yàlla wërsëgaloon mu lekk ba pare naan ba pare daa dina alhamdulilahi rabbil alamin am na tuyaaba ju tol ne waaja wooroon muñ ak kooram waa ji yàlla wërsëgaloon mu dem a dem kurukuri ba yàlla wërsëgal ko kër mu dugg ci kër gi ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may na ko tuyaaba joo xam ne kenn xamul lu mu toll mboolem xéewali yàlla yi lépp loo xam ne ni am nga ko ca nga wëlbati ko yéeg ko xéewalug yàlla sant ci yàlla loolu tuyaaba la ndax qul hiya lillazina amanu amma nag am nañu leen xaaraan ba ëppale leen ci moo tax gaa yi xam ngeen xaaraankat la muy lekk borom kër du ko lekk waay ah loolu nag moo tax yéeféer yi xaaraan nañ leen ci ba ëppale leen ci moo tax suñu borom nag ne allaaxira moom xaalisatan yawmal qiyaama waa àjjana buñ jugee ci àjjana yàlla nañ ci yàlla boole suñu borom danaan wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun ay yéen saay saay yi tey topp leen fële ci biir sawara yaa ngi dégg ca mooy mi ngi noonu xaalisatan yawmal qiyaama lii mbokk mooy la nga xamee ni nii sunu borom yàlla subhanahu wa taala ah sant nañu ko ci ñun jullit ñu war a profité ci xéewalu yàlla yi soo demee ci colonisateurs yi nga xam ne ñoo nootoon suñu maam yi dañu naan bari na ci ay dëkk ci Afrique ñooñu nga xam ne ñooy tubaab yi ñoo doon woo jullit ñi pour ñu ñëw waar nit ñi dugal leen ci lislaam lu waral loolu mooy lu bari ci africains yi nekkoon ci àll yi sauvage yi soxla wuñu woon yére bu xisee ba ngemb rek dem nañu amaa nag ñi ci tuub dugg ci lislaam islam da leen imposé ñuy solu seeni soxna dañoo war a solu ba dara du feeñ ci ñoom ñoom góor ñi dañoo war a solu pour julli gis nañ ne fi lislaam duggoon seeni yére yi ñu daan jële Europe lañ fa daan jaay un cinquième bi sax daawuñu ko jaay fi lislaam yeggul ba dañ naan colon yi daa nañ yaatal lu bëri bëri ñuy woote ci lislaam ngiree ñu islamiser l'Afrique ca loolu yëpp mu lay wone sunu diine ji ni mu complet sunu diine ji ni mu nitee sunu diine ji ni mu civilisé mi ngi noonu suñu borom yàlla tànnal ñu ko borom bi nag daal di wëlbatiku ne mi ngi leeral ay aayaam ñeel ñi nga xam ne dañoo xam ca mbokku doomu aadama bi la nga xam ne mooy xam-xam mooy li gën a rëy li ngay am ci kaw suuf borom boobu nag wëlbatiku ne kaay ma wax leen li yàlla araamal na am parce que it duñ ne yàlla dafa joxe ndigal ci lépp déedéet yàlla mu ni li ma araamal mooy fawaaxish fawaaxish ism la mooy bépp bakkaar boo xam ne jéggi na dayo ci ñaawteef ca lu ci bëri société yi sax dañ koy bañ njaaloo moo ca jiitu lépp loo xam ne wax ju ñaaw ak yu demee noonu lépp da nga gis ne fawaaxish la mooy bakkaar yu mag ya la ca feeñ ak la ca nëbbu am na ñoo xam ne du ñu def ñaawteef ci kanamu nit ñi waaye fu ñu wéete def ko mooy càcc gaag njaaloo gaag yu demee noonu borom bi nag ne yépp yàlla da koo araamal gannaaw ba suñu borom mu ne mooy araamal na al ismu ismu mooy bépp façon bakkaar rek ismu la lu yàlla araamal rek ismu la yàlla araamal na al baxi al baxi mooy bépp jalgati booy jalgati mbokkum julit na doon ci deram la wala ci alalam la wala ci deretam la bépp wax ju ñaaw joo jëmale ci ñoom ca fekk danga ko tooñ loolu la suñu borom yàlla tudde albaxi gannaaw ba it mu ne yàlla araamal ne bépp façon bokkaale yàlla subhanahu wa taala tëjee ko ni araamal ne ngeen di waxal yàlla loo xam ne xamu leen ko borom xam-xam yi dañuy wax ne yàlla dafa tegale fi ay bakkaar daa di mujj yi gën a garaaw yi gën a garaaw mooy bokkaale waaye bokkaale li muy garaaw garaaw bokk naa lu ko gën a garaaw mooy waxal yàlla subhanahu wa taala lu yàlla waxul ndax ki waxal yàlla lu yàlla waxul créé na ak bokkaale moom ci boppam def na boppam yàlla toog na place yàlla ca ku ko nangul loolu teg na ko moom it place yàlla ndax yàlla dong nga am droit jox ay ndigal ay jaamam kon moom bu créé na yàlla nee na nangam yàlla digle na nangam yàlla tere na nangam ba jaam yi ànd ak moom ci loolu ca yàlla waxu ko moom mi ngi bokkaale di woote ci ak bokkaale moo tax suñu borom mujj bàkkaar bu garaaw boobu ca mooy wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun la nga xam ne moo bari lool tey suñu rajo yeeg télévision yi borom boobu nag ne bépp xeet am na dig bu ko yàlla wutal heure bu digam ñëwee duñ ko mën a yéexe benn waxtu du mën a aussi di mën a tardé benn waxtu moo ko xeet yooyee am na fi qawmu nuux huud saalix ba ñun ñooy ña nga xam ne ñoo ci mujj ñun ñooy xeet bi mujj ci kaw suuf am na benn bis yàlla subhanahu wa taala dana tukkal àdduna gannaaw ba daje lañu atte ñu waaye mbokk ci biir xeet boobu it képp kenn ci ñun ci loo xam ne jàpp naa kenn sikk sakkaatu ci képp kenn ci ñun am na heure bu yàlla tudd ca lay dee ca mbokk julit bu doon tene ne dee boobu dafa am limite d'âge ñu ne da ngay dund cent ans dee xëy na kon nga ne naan noos ba quatre-vingt-quinze ans cinq ans yi moo jaamu ko yàlla bu doon tene dañ ne da ngay feebar doog a dee kon nga ne ah waaw naa ne noos bis bu ma feebaree rek dellu ci yàlla waaye mbokk dee amul âge amul feebar amul tukki amul toog mi ngi noonu dee bu ñëwee rek ñëw na jeex na amul benn raison benn raison buy mën a doomu aadama mën a expliquer dee dee dee rek la gars yi théâtre ñu ne bàyyi daa xëy toog ak njaboot gi waxtaan ñu reer ba suur ñu dem tëddi ah njël jot bàyyi ñu xool bàyyi dee na waa bàyyi lu ko war a rey bàyyi lu ko war a rey taw bu góor bi nag xel mi neexul mais bi mu ñëw xool baay bi daan ne baay mii di wóoluwuma ci yàlla baay mii wóoluwuma ci yàlla de yaa ngi de waaye loolu wax na waxi daf ñoo xam ne nii laa chàkk ne mooy waxi dëgg am déet su ko defee kon mbokk yàlla jàlla wa ala moo wuutal ku nekk ci ñun heure ba war a dee bu jotee jot na borom portable bi mën na am utal na ko heure bu muy sonné pour yee ko am déet heure boobee tant que jotul portable bi du sonné waaye bu heure bu jotee une seconde du ko ci teg lu dul ne dana sonné loolu moo tax ku nekk war a tiit dee ndax xamoo fu mu lay dikkee xamoo nu mu lay dikkee xamoo kañ la lay dikkal heure bu ñuy dikkal yàlla nañu dikkal ci ngërëmal yàlla ñu ngi noonu cheikh Ali
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على بهم أنهم كانوا كافرين جزاك الله خيرا suñu borom mu ni yaa bani aadam ay yéen doomu aadama yi imma yatiyannakum rusulun minkum waxtu woo xam ne dikkal na leen yonent yu bokk ci yéen yaqussuuna alaykum ayaati di jàng ci yéen samay aaya day faman ittaqa wa aslaha képp ko ragal yàlla ci yéwénal fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñu de du am lu ñuy tiit du am lu ñuy tiisoo walazina kadabu bi ayatina ña nga xam ne nag dañoo weddi suñuy aaya wastakbaru anha rëy rëylu ba bañ koo topp ulaika ashabu nnar ñooñ de ñooy ñooñu sawara hum fiha xaalidun ca dañ fay sax ba faw fa man azlamu mimman iftara ala allahi kaziba ma ana ku gën a mën a toon ci kiy duural ci yàlla ay fen aw kazzaba bi ayaati wala muy wedde ay aayaam ulaika yanaaluhum nasibuhum min alkitab ñooñu day dana leen jot seen cër ca téereb yàlla ba ca dogalam ya hatta ida jaatuhum rusuluna yatawafawnahum ba baa mu leen di dékkal suñu yeneen ti ya nga xam ne ñoo leen di faat si bu ko defee qaalu ayna ma kuntum tad'uuna min dunillah daan leen laaj ma yéen ana li ngeen doon jaamu gannaaw yàlla ana li ngeen doon woo gannaaw yàlla qaalu dallu anna ñu ne ah ñooñ de réer nañ ci ñun tey wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kaasi kafirin ñu daal di seede ci seen bakkan na ñoom day nekkoon nañ di aji weddi mi ngi noonu mbokk ñeenteelu woo bi suñu borom woo mooy ay yéen doomu aadama yi xam leen ne heure bu leen yonenti dikkalee di leen jàngal samay aaya mbokk yonenti yooyu yàlla tegale na ci ñu bari yàlla rek moo xam seen lim exact nan la toll donte ni am na riwaay yu ci wax yu bari li ngay xam daal mooy ka mujjoon ci ñoom mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad moomu nga xam ne ma nga faatu ca atum fukkeel ma ca gàddaay ga li nga nekk kon junni ak ñeenti téeméer ak fanweer yoo xam ne def na ko ci biir suuf kooku moo nekkoon mujjeelu yonent bu yàlla yónni keneen ko woote woone yàlla yónni na ko wallaay waxul dëgg keneen ko woote wootit ne moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam moomu sahaaba yi dencoon ci xabru ba judduwaat na nekk di woote waatit wallaay ko wax loolu waxul dëgg li ngay gëm mooy yonent yàlla mooy xaatama nabiyin te it suñu borom nee na maa kaana aba ahadi min rijalikum nekkul bàyyu kenn ci góor ñi loolee di mbir yoo xam ne julit da koo war a gëm mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala ne képp koo xamee ne nii gi dégg na yonent boobu woote mu dégg aaya ya mu jàng mu topp aaya ya ragal yàlla ci ittaqa mooy def ndigal ya bàyyi tere ya mu lay won ne ngallaawaay yow góor wala jigéen ñépp war a xam aaya yi yàlla di wàcc ci ab yonentam moo gaa yi loo xamul noo koy ragale kon fokk nga xam li yàlla digle li yàlla tere fa man ittaqa koo xam ne nii ragal na yàlla bàyyi ay tereem wa aslaha ragal na yàlla yéwénal ay jëfam suñu borom yàlla nee na ko mel ni amul lu muy tiit ca àllaaxira jëm jëm wala hum yaxzanuun heure bu ñuy wane gannaaw àdduna it amul benn tiis bu ñuy yóbbaale ndax yàlla dana dalal seen xel borom boobu subhanahu wa taala wëlbatikuwaat ne ñi weddi nag samay aaya muy yéeféer yi rëy rëy lu bañ koo topp ca mooy mbokki seytaan yi nga xam ne xam nañ dëgg ba pare lànk bañ koo topp borom bi nee na safara lañ jëm ca dañ fay sax ba faw borom bi wëlbatikuwaat laaj ana ku gën a mën a tooñ ci waa ji nga xam ne day fenal yàlla ne yàlla moo wax nangam ca bokk na ci fen wi gën a rëy mooy yàlla yónni na ma may yonent bokk ne fen wi gën a rëy mooy yàlla yónni ne diw mu nekkob yonent ca yàlla yónniwu ko ana ko gën a mën a tooñ ci ki duural yàlla ci ay fen muy benn go wala ki nga xam ne li yàlla wax ci ab téere moom daa wëlbati ko daal di koy weddi kazzaba bi ayaati borom bi ne baax na ñooñu nañ nekki boor nañ nekki sëriñ nañ leen joxe milliard nañ tabax ay pale dana leen jot li yàlla dogal ci ñoom ci àdduna mbokk taxaw ne yàlla amoo may yàlla comme ni ko firaw na taxoon du la tax a dee de dig bi la yàlla digal da nga ko dund li la fi yàlla bindal ci wërsëg da nga ko jot waaye nag gis dana ma sa ñëw gis nga gis dana ma sa ñëw moo tax suñu borom ne bu ñooñu buñ la jaaxal li ñuy dund ak décanoos loolu mooy seen cër bi leen yàlla bindal ci àdduna heure bu suñu yeneen ti ñëw di leen faat nag malaaka yi dañ leen laaj waaw ana ñi ngeen yaakaaroon te duñu yàlla su ko defee ñu ne ah ñoon de tey gisuñu leen tey dallu an na dallu an na gaa yi dégg naa benn kilifa gu mag ci Sénégal mu ne bàyyi leen ko jóg ñu ne cheikh cheikh ah képp koo xam ne sa taaliba mënoo fa muy faatoo nga ñëw assisté ko taxaw ci wetam bu ruux gi génnee nga mën koo gàttandu teeru ko bu ñëwee biir bàmmeel fekk la fa bu malaaka yi koy laaj ñëwee nga tontu leen ëllëg nga jàpp ci loxoom jéggil ko siraat dugal ko ajjana yeyoo ñu lay wax cheikh bàyyi leen ko jóg rek ñu ne ko cheikh cheikh yombul ma gaa yi ndax déggu leen lii nii neexul ba dee waaye képp ku gëm loolu wallahi malaayka yi buñ lay jël si daañu la waxoo ana cheikh yaa ngi def su boobaa su boobaa da nga xam yooyu mbokk suñuy lépp la suñuy lépp la nañu xam ne waxuñu ko pour dingat kenn dañ koo wax pour yërëm la yow jaamu yàlla bi gëm loolu ca sa yaakaar nar a tas xamal ne la dul tas sa yaakaar mooy gëmal sa yàlla sa boroom gëmal téereb yàlla bi jëfal loo baax yaakaar yàlla yàlla day bis booy dee ma nga fa booy dugg bàmmeel ma nga fa booy dekk ma nga fa mooy ka nga xam ne moo commandé malaaka yi du ñu def lu dul lam leen sant loolee moo bëggal suñu bopp jàmm bëggal la ko moo tax waaye déngatuñu kenn loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee lu ñu tonta malaaka yi dallu an na ah yàlla dinañ yaakaaroon tey gisuñu leen tey borom bi nag subhanahu wa taala ni keroog la ñuy bokk seede ne ndekete ñoom day weddi woon nañ la yàlla subhanahu wa taala digle woon yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yi ko gëm yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi ko jébbalul gëm ay aayam te jëfe ko yàlla na yàlla defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal dafay wax rek ci ñu laaye biir ndax dafa romb benn soxna ñooñu di wër di dagg ay wee ci mbedd mi mu ñëw taxaw mu daggal ko loxo yi weyu loxo yi mu yëkkati tànk yi mu daggal ko tànk yi loolu mbokk dafa xaraam dafa xaraam jigéen li jullit di jox ay cëram góori jaambur mu koy daggal ñu ngi doonu mu des nag yow mi sa xel dal ci jamonoy sida nga gis ñooñu di wër ku nekk nga jox ko say mu daggal la loolu moom beneen mbir la waaye daal nañu xam ni buy amin na am ca góor ña waaye daal daganul ci jigéen nga jël say loxo ak say tànk di ko jox ay góor ñu leen koy daggal ay we amma boo demoon ci suñ marché yi gis jigéen ñi dem foofu ay jig ay góor ñoo leen di afro ay góor ñoo leen di defal lu nekk ay ah ah defal ay tatouage ba di ko def foo xam ne rus nañ ko tudd ci jàkka ngal la waay mbokk loolu dañu xam ne loolu moom daa passé xaraam ndax xëy na yi xaraam am na ci yu lënt mais am na ci yoo xam ne képp ko am tuuti xel rek xam nañu li lu xaraam la mbokk loolu ab taar jaru ko mi ngi noonu wallahu alam naam bismillah naam waaw baal na waaw xaaral xaaral waaw ala kulli xaal nañu xam ne adduna bi benn bis lay jeex muy bisu ajjuma bisu ajjuma lay jeex beneen bis amatul looloo tax àllaaxira nekk ajjuma ndax beneen bis amatul mooy yowmul axir beneen bis amatul kon adduna bisu ajjuma lay jeex ajjuma joojee da ngay gis ne ca la yàlla di atte ay jaamam ñay dem ajjana ca la ñuy dem ajjana yal na yàlla boole ñu ca ñay dem sawarit ca la ñuy dem amma bu dee dee ngëneel bisu ajjuma loolee day am na ay xadis yoo xam ni borom xam-xam yi jàpp nañ ne xadis yu wér la bokk na ci ko mel ne Cheikh Nasiruddin Albani mi ngi noonu ca téeréem bu màgg boobu di ahkaamul janaaz lay wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn jullit buy dee guddig àjjuma wala bëccëgu àjjuma loolu yàlla dana ko musal ci mbugalu bàmmeel kon loolee ay ngëneel la yu yàlla defal ay jaamam yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ay ngëneelam naam bismillah naam baadu salaam daa def xam salaam.
waaw fàttali ko après ndax day baadu salaam rek ndax waa ji nga xam ne nee na da doon julli dafa def mu ngi waroon def baada salaam nee na bi muy jullee ba pare mu daal def xabla salaam léegi nag xelam dem na baada salaam la waroon def mbokk loole mu def baax na xabla salaam ak baada salaam borom xam-xam yi dañ ci am ay ixtilaaf am na ñoo xam ne dañuy defar julli yëpp xabla salaam rek lay doon am ñoo xam ne dañuy defar julli yëpp baada salaam rek lay doon donte ne ñu gën a digg doomu ca gën a dëppoog sunna mooy ñi nga xam ne dañ ne boo yokkee defal baada te muy sëlmal doog a sujud boo wàññee defal xabla waaye maa daama def nga erreur ci julli gi sujud nga waroon nga def xabla baada nga su nga juum sujud def xabla soo paree julli gi baax na mi ngi noonu parce que dañ naan sujuutu sahwi kenn du ko sujuutal mi ngi noonu wallahu aalam naam bismillah naam ndax waaw beneen bi mooy ndax suñ suñ jullee takkusaan ba timis foofu nit ki mën na fa naafila wala bala ngay naafila day fekk ñu julli timis ba pare te julli timis est-ce que am na droit naafila ndax seytaane ak jinni mënees na ko teqale bépp seytaane jinne la doonte ne du bépp jinne mooy seytaane seytaane muy jinne yéeféer bu fikkirlu ñooñu la ñuy wax seytaan loolu it moo tax nit ñi am na ay seytaan seytaane nit mooy bépp yéeféeru nit bi woote ci réer seytaane la moo tax borom bi ne shayatin al ins wal jinn dafa am seytaane ci nit ñi ak seytaane ci ci jinne yi amma takkusaan naa fi la gannaaw takkusaan loolu day li ñuy tuddee la ëpp ci borom xam-xam yi ñoom dañu ne ki xis julli takkusaan ba pare amatul droit naafila lu dul jant ba so soo demee nag dana am ñoo xam ni dañ naan la ña nga tere naafila fa jant ba xonqe waaye daal la ëpp ci ñoom dañ ni ki xis ba julli takkusaan amatul droit naafila lu dul jant bi dafa so léegi nag jant bi sono su boobaa am nga droit naafila même boo julleegul timis jamono yonent bi alayhi salaam bu jant bi sooy rek noddkat bi day nodd avant yonent bi di génn sahaaba yi dañ daan def di naafila yonent bi dee leen wax sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib ca ñetteel bi mu ne liman sha day leen julli gannaaw avant timis gannaaw bu mu ne ko mu soob ca mooy kon ñi ngi tere na fi léegi avant jant bi di soo mais fu jant bi soo rek na tere googu teggeeku na wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu ñii day laaj mu ne ñii day dégg ñu ne yeneen bi balaa mu doon tëdd day ëpp ci loxoom jàng fa kii Fatiha ak Maal rek laa nii raay muy laaj ndax day ëpp doore jàng wala day jàng ba pare ëpp wala bu su ëppee day jàng sabaat doore raay.
waaw naka xadis a jàngale day danaan day dajale ay loxoom ëf ci gannaaw ba jàng ci loxo yooyee suraat yi raay ci yaramam loolu naka xadis bi jàngale wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa ngeen ah ma ne moom nag Fatiha ak Ikhlas dinaa ah fatiha ah déedéet fatiha bokku ci mooy da qul huwa allahu ahad la qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas bu ko defee nga raay sa yaram ba sa kemtalal kattan sa kanam ngay jëkke gannaaw ba defaat ko defaat ko muy ñetti yoon noonu la ko rasul sallallahu alayhi wa sallam doon defe ngeen jéggal ñu rek comme de guddi na ñu mujj ci mbokk bi waaw bismillah waaw ndax fase bu amul seede ndax fase boobu rot na la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne fase bu xisee ba tabbi tabbi na am na seedeem amul seede sa soxna am nga lu ngeen séq nga wëlbatu ko ne ko fase naa la benn fase rot na seen diggante seede nañ comme seedaloo wuñ ko loolee da ngay gis ne dañ koy tuddee fase la boo xam ne fase bid'a la waaye la borom xam-xam yi dañ koy boole ci fase doonte ne lay sunna ci fase mooy ñu daal di ut ñaari nit daal di leen koy seedaloo ba nga xamee ne même ki nga xam ne meram taxoon na mu jàkkaarloog soxnaam ne ko fase naa la it war naa wut ñaari jurit ne leen ah xam leen ne day sama soxna diw fase naa ko ñu seede ko yal na yàlla musul ñu luy tax fase di dox suñu diggante wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain